salaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu mbokki maa ngi leen nuyu bu baax di leen ziar tey ci fajar ba ma jullee pare dama taal sama téléphone ma gis benn information di daw mais jotuma ko woon a lire ma teg sama téléphone ma dem après ay côté 10 heures yooyu téléphone daal di gis ñëpp di si partagé ma xool ñu ne benn waay la boo xamante ne daanaka fecckat la woon dañ koo fekk ci amant jarbaatam daal koy rey ci biir fii Sénégal mu nekk loo xamante ne ñu baree bari si sénégalais yi peut-être maanaam dañuy topp métti bi nii rek métti na awóor yi métti na de ndeysaan yaayam nangam papam yaayam maanaam métti na trop waaye dëgg-dëgg duñu xam cause bi ak maanaam li nga xamante ne moom la ñu war a jàngee si mbir yàlla subhanahu dafa am lu mu ci alxuraan daf ne walakum fil qisaasi xayaatun yaa ulil ne yéen ñi nga xamante ne da ngeen am xel ah su ngeen bëggee dund dund bu neexee foo ngeen di def li nga xamante ne mooy fayu maanaam nit ki su reyee état daf ko wala rey imagine su état amoon ne nit ku taxaw rey nit ñu jàpp ko bëccëg dara kaam rey ko carrément képp koo xamante ne amoon nga yéene rey nit wala képp koo xamante ne sa xel rey nit mu ngi ci woon di nga reculer mais malheureusement Sénégal amul lool Sénégal nit day rey nit toog. ñu ne la fukki at te léegi at yi nu gaaw yi fukki at nga gis ko mu génnaat dem bal sax am na ñoo xamante sax mun na am sa fukki at du ko mat maanaam mu nekk loo xamante ne doo xam du mu demee noonu beneen affaire tamit mooy Sénégal danga naan est-ce que Sénégal gii mooy Sénégal gi ñuy wax pays de la Teranga est que Sénégal bi la Sénégal bi nga xamante ne bu njëkk dañ doon wax naan foo dugg añ Sénégal am sécurité am lépp léegi Sénégal sa biir appartement. sa biir kër sa biir néeg nekkoo en sécurité foo mënti nekk nekkoo en sécurité nit ñi seen xool yi sarig nañ sañ nañ lu ne doo xam ba xam est-ce que sénégalais yi carrément ñoom ñoo koy def wala dafa am ay yoo xamante ne dañ leen a may ñuy dugg si biir dëkk bi di def ay affaire parce que tamit réew mi nañ waxante dëgg réew mi amul kubéer réew moo xamante ne ku jot dugg réew moo xamante ne bu la neexee nga jaar nii yoonu Gambie wala yoonu Mali wala yoon fu la neex njëkkee a dugg du am benn visite bu bu bu wóor bu ñu lay def maanaam lu la neex ngay dugg ci dëkk bi te duñu yem ci loolu da ngay dugg ci dëkk bi kenn du la laaj séjour kenn du la laaj dara nga toog ci biir dëkk bi am say dund di def lu la neex ci biir dëkk bi yam fekk waa ji nga xamante ne moom fii la juddoo fii la xam fii la def lépp maanaam mu nekk loo xamante ne lu grave la te nit ki nga xamante ne moo ñëw ci dëkk bi mën na nekk ñaar mën na nekk ku baax alhamdulilah bu nekkee ku baax baax na koo xam ne dafay ñëw pour développer dëkk bi ah, liggéey loolu rek lay def jaamu yàlla yooyu kooku ñun ñëpp ñu ngi koy xajaat suñu dëkk ne ko acca bisimilah ñëwal dugg ñëw ñun ñun soxla nañ loolu ba bañuñ loolu comme exemple guinéen yi saa gis guinéen yi macha allah ñu baax lañ dañuy ñëw dugg si dëkk bi liggéey moo leen fi indi jaamu yàlla yoo ñëpp ñun dañuy kontaan si ñoom su gisee dañuy kontaan si ñoom parce que dañuy xam ne ñii duñ ay ñu bon waaye ci noonu ci la amee si beneen wet gi nit ñoo xamante ne dañuy ñëw ci dëkk bi te dara indiwu leen fi lu lu bon sacrifice ray nit ah jaay dorog jaay yamba def nangam détourné alalu jàmbur maanaam nekk ci affaire yooyu noonu rek rek lañ nekk ci dëkk bi te loolu état daf see war a jël mesure bu mag a mag a mag a mag bu mag sax bu mag a mag a mag Sénégal bu demee ba nit ki fi nga xamante ne maanaam foofu mooy dernière fi nga xamante ne nit ki foofu la war a amee sécurité muy këram wala néegam dem bañ koy fekk foofu di ko rey maanaam loolu mën nañ ne kenn nekkatul sécurité parce que ñun dëkk bi fi lañ dëkk. ku nek keur nga fi am wala neeg nga fi am yow bu demé ba sa neeg bi nga xamantene fa ngay nek mënatu fo laqatu waxtuma la mbedd mi ndax si yoon mbedd sax da nga fi waron mëna laqatu su yoon mbedd ba fa dara war la wona dal waaye léegi rom nañ mbedd mi sa bir keur sa bir neeg danger mëna la fa fek doy na waar torop torop torop sax benen bi euh lu grave la moy ñun ak ku mënti doon ku nek mën nga japp ne yow mi en sécurité fek li yalla wax daganul wala dogaluñ ko feeg lu yàlla wax dogaluñ ko ci dëkk bi xamal na yow mi nekk ko en sécurité yeneen dëkk yi nga xamante dañoo avancé yeneen dëkk yi nga xamante ne dañoo topp li nga xamante ne moom la yàlla wax wallahi nit dafay dox guddi ba fajar bu ko neexee du jot ku ko sàcc du jot ku ko agressé wax ma la ay rey waaye Sénégal minuit sax boo koy génn sa kër sa yaay daf lay wax ne la ah nangam sangam dawal bu baax xoolal fii defal nangam defal nangam ah gars yi baaxuñ nangam sangam ci Sénégal gu Sénégal gi nga xamante ne daanaka soo fi génnee mbokk yi lu fi des dootu bëreeti mais lan moo waral eh, eh, maanaam euh, dëgg-dëgg la moo ko waral doy na waar trop trop trop moo tax état bi maa ngi leen ci woo bu baax a baax a baax ñu gën a veillé loolu parce que nit ki dund neex na lekk neex na naan neex na waaye nag su fekkee da ngay dund di lekk tey yow amul sécurité amu benn amul njëriñ bëri nañ ay militaire bëri nañ ay policier bëri nañ ay gendarme waaye ba tey rey yaa ngi gën di yokku soo demee suñu fête de l'indépendance ay 4 avril bu amee nga gis militaire yow sa bopp sa da nga naan ah lii moom wax dëgg yàlla lii de buñ gardé woon Sénégal dara doy waaye ana militaire yi ñu ngi fële ana policier yi ñu ngi ci kaw tali bi ana ñeneen ñu ngi ci kaw tali bi guddi gu jotee da ngay dox lu mat 5 kilomètres bu la neexee doo gis benn policier bu taxaw policier yi nelawi nañ militaire yi ñu seen camp yi ñëpp de maanaam civil yi rek ñoo nekk si biir dëkk bi ñooy ñooy ñooy liggéey bopp ku gën a bànni sa morom sadik taxaw si benn roq bu lëndëm nga xaar kenn ku ñëw nga agressé ko nangu téléphone am soo ko rayee mu siiw soo ko rayu kenn du ko yëg ndax parce que ñu fi agressé chaque jour bëri na ñii dañuy yor seen mboto ñu nang ko kenn du ñii dañuy yor seen téléphone ñu nang ko kenn du ko yëg ñii dañuy def nangam ñu def leen ko te kenn du ko yëg waaye bu reyee rek day siiw kon nga gisee si ne maanaam rey yi day siiw ni mais am na yeneen yoo xamante ne moo jiitu maa ngi doon dégg sànq ci vidéo ki nga xamante ne moom lañu rey euh, am benn waay bu témoin di wax naan ne moom tamit sax mos nañ koo ak mboto maanaam mu nekk loo xamante ne lu bëri la daal daanaka pour nga gis sénégalais boo xamante ne mu ngi ci dëkk bi xanaa mu nekk boo xamante ne eh, dugg dugg dund dund ñi nga xamante ne mooy baadoole mais képp koo xam ne yaa ngi dund dund baadoole ngay xëy suba ngoon guddi ngay dox di génn di dem te yow soo gis ñu agressé la wala yow nga gis koo xamante ne agressé nañ ko lu yéeme la ci Sénégal gii nii non doy na waar trop doy na waar trop di ñaan yàlla ñaan la yàlla jégal ki nga xamante ne moom lañ rey ndax lu métti la vraiment franchement métti nit koo xamante peut-être mën na amoon na yaakaar si moom ay waajuram ay papam ay nangam ngeen rey ko nii mu mu jeex nii rey jar baatam dana waa torop torop torop torop torop yal na yàlla jégal seeni bàkkaar dugal leen ci àjjana gën a kawe yal na yàlla jégal ñëpp ñi nga xamante ne rey nañ leen ak tam ñu ñàkk seen bakkan dana waa bala maa sori mbokk yi xanaa ma dañ du ma dañ di leen présenté ñi nga xamante ne ñooy suñu partenaire ñu koy wax Sissoko Habbatu benn entreprise boo xamante ne dafa yëngatu ci a nga xamante bi nga xam bi na yëpp lay faj ba mu des dee jamono ji ma wax mucc ayib maanaam ak li nga xamante ne moom lañu alxayaat ak benn pompe mucc ayib maanaam képp koo xam ne ngay jàmbat sa yaram di métti du bari wala ngay jàmbat ay karaw yu ruus wala ngay jàmbat yeneen feebar yu bëree bëri wala ay xeetu seytaane ay cat ak yu mel contacter Ciseaux Haba Sawda incha allah mun nga am li nga ne mooy solution parce que ñoom seeni liggéey dañ koy liggéey ay ruqya charia ak teg ko ci diine maanaam maîtriser métier lool di góorgóor bu baax a baax a macha allah képp koo xam ne Ciseaux Haba Sawda international contacter leen doo ko rëccu ndax Ciseaux Haba Sawda seen wér-gu-yaram moo leen tax a jóg kon mbokk yi fii la yemale vidéo bi ba beneen yoon incha allah ñu lay fàttaliwaat rek su fekkee abonné boo nga abonné aussi tamit nga yemee vidéo bi su ko mënee partagé ba keneen mën sa nga partagé ko salaamaaleykum wa rahmatullah